salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal rawatina yéen ñi di suivre seen bii di IYAT TV ginnaaw loolu ñu leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di ñaan yàlla mu def jàmm ci mi. tey damay ñëw ci jëmm ji di Bougane Gueye Dany Bougane Gueye Dany euh, mu nekk nit koo xam ne bu ngeen xoolee euh, ay at ci ginnaaw ku Sénégal yi nawloo woon la ku Sénégal yi amoon ci moom yaakaar la mais finalement gis ngeen ko tey fan la mujjee. nekk nit koo xam ne jàpp na ne moo gën a muus ci Sénégal jàpp na ne moo gën a yeewu ci Sénégal jàpp na ne moo gën a am xam-xam ci Sénégal ba lépp lu mu def wala bépp plan bu mu lal amul benn sénégalais bu am capacité pour mën a xam li muy def nii mooy lan ak lan la si jublu. parce que yéen ñëpp gis ngeen ne moom mooy nit ki njëkk a jox crédibilité tappale yi nga xam ne ñii di waa parti démocratique sénégalais maanaam ak complicité bu Macky Sall ànd nañ ci pour jéem a reporter élection yi moom moo njëkk taxaw di ko dëggal di ko fësal. ba pare jàpp na ne moom sénégalais yi xamuñu dara ci li nga xam ne mi ngi koy joué comme parce que bu ngeen xoolee li nga xam ne moo jot a xew ci rapport élection yi moom dara ump ko ci A ba lépp la maîtriser xam lépp ndax bi nga xamee ne ñii di waa Jomaay président pare nañu pour dem ngir ànd ak moom ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëgg ma loon muy présidentielle 2024 yi lan la leen wax nee na leen mënaguma cee wax da ngeen may may fi ak le trois février parce que le trois boobu noonu ci la Macky Sall waroon def discours bi nga xam ne ci la waroon a waxaalee li nga xam ne mooy rapportu élection yi donc Bougane xamoon na lépp tey tam moom bokk na ñi nga xam ne ñoom la Macky Sall recevoir oon pour ñu mën a wax ci lu ñeel dëggaluk rapportu élection yi kon Bougane Gueye Dany hypocrite la naafeq la workat la amul dignité amul personnalité ndax li gën a bon ci àdduna mooy nga def sa bopp fenkat ba pare jàpp ne sénégalais yi ñoom ay ngaaka lañ wala ay naxa nañ naxa lañ yoo xam ne nii mënuñoo xam mukk benn plan boo lal wala lenn looy waaja def te ñoom duñ ko xam amul amul kenn ko am ma xamam waaw kon Bougane Gueye Dany li nga war a xam mooy sa mbubb mi nga soloon maanaam jàpp ne kenn xamul ne lii deru bukki deru bukki boo sàngoo nga jàpp ne yi xam nañ sa vrai visage xam nañ yaay kan xam nañu li li la yëkkati ci politique mais nag désormais à partir d'aujourd'hui xamal ne sénégalais yi xam na yaay kan ak ci ban boor nga fare ñii di waa parti démocratique sénégalais nag ñoom seen wàllu wéy na ndax ñoom ku ne xam na seen complice complicité bi ñu am ak Macky Sall maanaam complot complot bi sax bi nga xam ne def nañ ko ñoom ak Macky Sall ba randal suñu élection nga xam ne ñoom dañ cee perte quatre-vingt-dix mille fois parce que boo xoolee ñoom li leen dese woon tuuti ci crédibilité ñàkk nañ ko à partir de ce momala kii di Macky Sall moom. liñ ko doon wax naan ko Macky Sall baadoola du jub gàcce mukk te yëgu ca baadoola du jub gàcce mukk te te Macky Sall gis ngeen torox tànge di ko yàlla nar a toroxal ci digg réew mii loolu moo waral mu reporté élection yi nga xam ne moom la Sénégal yëpp doon xaar di ko waajal ngir le 25 février ñu mën a organiser ay élection yu transparent kii gañe gañe ñu mën a dem ci jàmm salaam bal du tàkk dara du xew mais Macky bëggeewu ko noonu lan la bëgg ku ko toroxal parce que dañ ne géwal bu rëppee ci xare lépp lu mu jiin rek da koy xeet te Macky Sall moom ci boppam xam na ne Sénégal gii nii ay nit yu yaroo fi ne Sénégal gii nii ay nit yu xam li ñu bëgg ñoo fi ne mais moom chaque jour que jëfee mi ngi leen di woo ci violence mu ngi leen di woo ci xeex mi ngi leen di woo ci loo xam ne nag su dul noonu la Macky Sall wax naa leen dafa xool ki Sénégal yi gën a bëgg gën koo jox bopp mu tëj ko ci kaso bi Sénégal yi ne tekk mu xool li Sénégal yi gën a yittewoo muy internet mu ne ko ràtt yaa ngi mu xool télévision bi nga xam ne moom la sénégalais yi gën a jox bopp di ko seetaan mu ne ko ràtt tëj kon Macky Sall digganteem ak population Sénégal lan la. Macky Sall mbañeel gi nga xam ne jiital na ko ci digganteem ak sénégalais yi nga xam ne ñooy ñoo ko faloon 2012 lan la. parce que Macky Sall fu sénégalais yi jëm moom feneen fa lay jëm di opposé wu ak sénégalais yi comme pas possible. tey jii bu gisee ne sénégalais yi fii la seen mbégte nekk wala fii la seen contentement nekk moom foofu lay xëpp aw ay. fan yi nag gis ngeen pression bi nga xam ne Sénégal yi teg nañ ko ko fi mu toll nii moom ci jëm boppam wallaahi laazim bu waxee diggam ak yàlla am regretté na li waraloon mu def report bi nga xam ne mooy report élection yi. parce que nag amul jàmm gis nga nit sa conscience boo defee naka su doon sa conscience moo dul tranquille Macky Sall conscience moo tranquille bu tëddee du nelaw actuellement guddi yi ñu toll nii. parce que gis ngeen bi nga xamee ne ñii di waa ñi ñi di waa Nations Unies yi mettre nañ ko la pression pour mu dindi internet bi ak li nga xam ne tëjoon nañ ko muy TikTok beeg yooyu noonu. immédiatement daf koo dindi te xam naa ne non seulement maanaam du ma ne sax ñoom ñoo tax mu dindi ko mais da koo fekkoon mu di ci xalaat ndax dafa xam ne fi mu toll nii li mu lebal Sénégalais ci ay ñaawteef jéggi na dayoo te de tôt ou tard danañ ko ko fay. fi ne nii Macky Sall lu ko waaye wax mu def ko xam nga yéen a ngi dégg ñuy ruumandaat di lam-laamee naan Ousmane Sonko bii ci kaso bi bientôt Macky la ci préparé wu maanaam mi ngi ci préparation pour génne Macky Sall pour génne Ousmane Sonko libéré ko parce que dialogue bii muy woote nii. dialogue bi nga xam mi ngi koy woote pour sénégalais yi ñëw ñu dialogue lenn kese mooy nekk maanaam euh, objectif am li nekk programme principal am mooy mu fexe nu mu génnee Ousmane Sonko ci kaso bi pour mu mën a ñëw ci dialogue bi te fi mu koy jaaree fenn képp la. parce que xam na ne Ousmane Sonko moom bu Macky Sall doon def dialogue mu wóor ko ne bu ñëwee ci bi bii Sall dana ko jox maanaam liberté totale nga xam ne du amat amlanteeg yoon benn yoon te dina bokk ci élection yi incha allah sax du tax Ousmane Sonko dem ci dialogue Macky Sall. parce que Ousmane Sonko waxoon na leen ko déedéet nee na Macky Sall mii du ko ñuy dialogueel Macky foo gisee muy dialogue xam leen ne def na loo xam ne wóor na ko ne lii conscience am tranquille la tut dem na ba xam ne lii jéggi na dayo ci ay ñaawteef dem na ba xam ne àdduna mere nañ ko dem na ba xam ne sénégalais yi jéppi nañ ko mu ne damay woote dialogue pour jéem a léere yenn sénégalais yi def ay excuse am mais Macky Sall du nit ku ñuy dialogueel Ousmane Sonko wax na leen ko bu yàgg a yàgg Ousmane Sonko boobu nag Macky Sall mi ngi ci tànki jéem koo libéré pour jéem ko indi ci bii paa nag façon bi mu koy jaare mooy dina jéem dem ci yenn kilifa pour diabolisation boo xam ne dana leen Ousmane Sonko mi damaa bëgg ngeen maanaam weñal ma loxoom dialogue bii nga xam ne maa ngi koy woote mu ñëw nga xam ne boobaa Ousmane Sonko ay kilifa ñu naan ko demal ci dialogue bi nga xam ne Macky Sall mi ngi koy préparé parce que nag ku ñëpp tuf nga tooy comme que yii yëpp mi ngi doon woote demoo bii paa wootee demal su boobaa Ousmane Sonko xam ngeen ko ci dégg ndigal parce que gis ngeen bi nga xamee ne mag Ousmane Sonko jekku na réew mi nga xam ne mënoon naa am mënoon naa def lu ko neex ci réew mi su yëngalaatoon tuuti rek soit armée bi day génn wala ndaw ñi dem fekk Macky Sall palais ay kilifa woo ko ñaan ko mu ne leen bu leen ma ñaan jox leen ma ordre ma jëfe ko kon kooku bu ko kilifa waxee demal ci dialogue Macky Sall bi du jox rek baat da cay dem ndax Ousmane Sonko ko xam xam ko ci discipline xam ko ci euh, maanaam euh, yaru xam ko ci bëgg ak fonk suñu kilifa yi mais Macky Sall moom contraire bi lu ko kilifa y wax leneen lay def te kilifa yi mas a wala ñu ŋàññi ko duñ ko mas a ŋàññi ban kilifa ngeen ma sa dégg mu taxaw di ŋàññi Macky Sall doo ko dégg waaw te Macky Sall muy nit ki jara gën a ŋàññi ci réew mi ndax li mu fi def benn njiitu réew musu ko fay def jàpp ay ndaw di di rey jàpp ay ndaw di tëj jàpp ay ndaw di def lu ko neex mel na ko yor ay xa ah, maanaam ay xaj wala ko yor ay ay mbaam et pourtant Sénégal yi lépp luñ ko lii Macky sàll beneen bi ci topp yéen ñëpp dégg ngeen Amadou Ba barki dem démb bi ñu ko invité kii di Pam nga Ndiaye moom maanaam dafa ànd ak Macky Sall entièrement ci li mu def te ne Macky Sall ay mandaam warut a yem dafa war dem ba deux mille vingt neuf wala deux mille trente cinq deux mille kon ñii xam ngeen ne jeu bi ñuy joué ak Sénégalais yi wallahi la azim bala ngeen koo comprendre ngeen dem ba ci kanam waaw te Macky Sall fi mu toll nguur gi mooy gim gim ci mooy nii dafa am fu leer fu mu ko teg ndax gis na jeexantalu nguur gii ni mu mel ni mu tànge ci moom. fu mu génn ñu di ko saagaa ko yuuxoo ak di ko wax ay wax yu ñaaw te bon te salte xam na ne bis bu jógee ci réew mi feneen fu mën a tamit noonu la fay nekkee loolu moo tax mu ne ma jéem a sàngoo réew mi pour mooy ci nguur gi bañ a dem lu ko mooy bu ma génn rek am naa problème ndax kenn mës sa gis njiitu réew luy tàggatoo te foo jaar ci àdduna ci Sénégal ñu dee xasaka yuuxoo ko saaga te xam nga ne boo jógee ci réew mi tamit noonu lay mel ci yow ndax xam nga ne lii yaa ko lebal Sénégalais ci ay ñaawteef te yàgg yàgg daañu la ko fay xam nga Sénégal li tax du masa avancer du mas dem fi réew yi euh, réew yu mag yi dem dafa bari ay nit yoo xam ne ay naafeq lañu ay workat lañu ay hypocrite lañu dañoo égoïste seen bopp rek moo leen ñor waa PDS moom seen wax waxatuma ko mais tey jii dangay jël benn nit bu ñuy wax Bougane Gueye Dany mu naan moom dafa gëm boppam ba tuddee parti moom gëm sa bopp tey jii nii moom mooy premier complice bi njëkk a dëggal fen yeeg tàppale yi nga xam ne ni ñii di waa parti démocratique sénégalais maanaam complot na ñoom Macky Sall ngir def ko pour reporter élection yi ci loo xam ne ay Sénégalais ñu ngi koy waat euh, maanaam depuis ay at 2019 ba léegi ñu ngi yàkkamti élection 2024 ñëw ba ñu waajal ko tey jii nii ñoom ñu def seen coalition ànd tappale pour jéem a reporter élection yi au nom de quoi xam nga Macky Sall coup d'état bi mu def nii muy coup d'état contre la constitution du Sénégal bii mu def nii nga xam ne àdduna bépp xam ne li def coup d'état li ko firndeel mooy bokk na ci keroog bu ñuy woote projet de loi bi fële ci assemblée nationale mu jël ma gendarmerie dugal ko ci biir assemblée nationale loo xam ne nii c'est pas normal pour lan ñu mën a génnee ñi nga xam ne ñooy opposition bi nga xam ne dañ faa nekk ngir bañ ñu voté maanaam li nga xam ne mooy euh, projet de loi bi parce que Sénégal yëpp loolu lañ doon réclamé kon xam nga ne lii ku ne maanaam du du du du du du du euh, coup d'état yow naafeq nga complice nga jërë ngeen